xalaat bu baax faaw ndaw ñi rawatina ñi nga xam ne ni dañoo ne ci classe sous l'examen mën a toppatoo seen xel. cest à nekk nit di def yëfu nit mais day nekk sa yaram ak sa xol ak sa xel ñu mun ko sàmm ba mun la jural loo xam ne mun na la lor c'est gisoo woon mu ñëw. ngir am hygiène de vie bu baax. mën a xalaat nu mu waree mu am lu bare li nga xam ne ni mën nañ cee sukkandiku. donc premièrement. la nuit est faite pour dormir. bu ci njëkk daal mooy guddi gi moom dañ koo def ngir mën a nelaw bëccëg bi moom ngir liggéey la waaye bu fekkee ne doo nelaw guddi bëgg rek euh, def forcing loolee day indi ay euh, bopp yu metti ñaareel ba mooy foog ñu daal di ndékki ñetteel ba mooy da nga war a xaar ba ci njeexitalu année bi nga tàmbalee réviser leneen li nag mooy wàllum tàggatu tàggat yaram. c'est de ne pas négliger une pratique sportive. Amadou Gallo Diop mi nga xam ne nii day jàngale ci neurologie delluwaat ci école Blaise Diagne bi nga xam ne nii fa lañ ko tàggatee ngir ñaax ndaw ñi ci anam yi nga xam ne nii moom la ñu war a préparer seen i l'examen. dana permettre élèves yi ñu am ay conseils euh, parce que professeur joxe na ay conseils joxe na ay recommandations élèves yi ñuy nelaw bu baax nañuy jàng journée bi nelaw te bu ñuy jàng aussi nañu noppalu toutes les deux heures. loolu day bokk si nga xam ne dafa leen di jàppale euh, pour seen njàng. lu ñuy lekk temps bu ñuy nelaw ak nu ñuy tàggatee suñu yaram doon lu am solo ngir yombalal liggéey mi suñu xel ba tax na xam yooyu la mbir day doon lu am solo ca ña nga xam ne nii dañuy waajal examen ak i concours.